milieu bu doy wax la encore une fois donc damay wax xale jigéen ñi rek ñu gëna a waat xel parce que réussite neex na mais nga jaarale ko fu rafet aussi amul dara lu ko dakh ñi ci nekk aussi ño xamantene dañuy utiliser xalé yi war nañ gëna a xel parce que ñen ñi ay jigéen lañ wala même buñu nekké ay euh dinañ am doom wala ñu am des sœurs donc buñu xolé ci seeni doom wala seeni sœur rek seen xol walu leen waru leen permettre ñuy def yenn yi. comme je l'ai dit léegi def attention parce que bo xolé dafa nek lo xamante peut-être avant amoon na lo ci meuna am boko gagner mais légui dafa nek lo xam pratiquement do ci am dara donc lo xam do ci am dara nak jarul nga ci def yenn dal neexna meuna nek sa passion et tout ça mais encore une fois nañuy def attention parce que en général avant nga yex ci Miss bi ni nga xamantene ci ñooñu ngay jaar avant ngay mën participer ci compétition bi parfois nga dajé ci ak ñoo xamantene ñu doy waar lañuy doon donc xale jigéen encore une fois li may wax rek kula won woon yoon boo xamante xam nga ne du yoon bu jubbi rek jéemal moytu nga jéem a seet leneen. ba mën naa wax euh, statut bi participer na ci parce que après sama mariage dama dama amoon envie concentré wu un peu ci sama nouvelle vie de femme mariée profiter tuuti parce que je venais d'intégrer la 2STV. te xam nañ ni télé dafa bëri pression dafa bëri stress bu fi nekk donc je me suis dit pourquoi pas ma reculer tuuti gëna concentré wu gëna savourer sama début mariage et tout ça après yalla def ma nekkoon en état et j'ai eu une grossesse un peu compliquée donc j'étais obligée ma daw touti dal dal di la loolu lool motax ma arrêté télé depuis lors gars ma fenn